waxee daara Muxaddamatul Xidma yàgg naa taxawal gàmm mën naa wax ba mu sosoo 1994 ba léegi mi ngi koy taxawal xëy na barab bii nag moom mm, fukki at yi jàll ci lañ ko tàmbale waaye lu ko jiitu dañ ko daan defee fële ci siège social ba kër Serigne Afia Bousso ginnaaw bi nag ci lañ am ndigalul mm, kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekkoon tàmbale ci Cheikh Saleh ci ne nañ ko dundal ci jumaa ji bi alxaaji Mouhamadou Amine ñëwee moom itam feddli ko Serigne Sidi Muxtaar nag moo nag gën a yaatal yëf yi ndax moo boole ñaari kuréel yi Muxaddamatul Xidma ak Rawdu Rayaaxin ngir xam ne bokk bëgg-bëgg bokk itam pas-pas bokk taxawaay te mooy tasaare njàngaleem Sëñ Tuubaa itam ci yoon wi mu boole leen leen ñoom ñaar nañ ànd di dundal guddi guddi gàmm gi fii ci jumaay Tuubaa kon mel na ne yokk gi moom mbirum sëriñ bi la mbirum mbirum mbirum yoon wi la moo mooy noonu foo ci xool rek da nga gis ne fa woon daaw ren weesu na ko rawati nag loo xamante ni ci jumaay Touba lay amee yokk googu tax na ci wàllu organisation bi ni nga ko seetloo yokkute gu am solo am na ci euh, c'est Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi toog jitaayub Xaadimu Rasuul yàlla na ko suñu borom yàggal lool te may ko wér moom itam bi mu ñëwee Euh, gën a dundal itam ndigal loolu nga xam ne moom la ay kilifaam defoon ren nag mu gën koo yaatal nag wax ne itam ne nañ ko gën a fonk gën koo yaatal ni ko sëriñ bi santaane bi sukkarin aw laxam yi daal di ci tabbal loxoom waaye itam fas yéene ko ànd ak noonu ne itam bëgg na sax teewee ci lenn ci jataay jataay bi euh, nga xam ne mooy gàmmu gi mm, ba fajar jot mu ñaanal mbooloo mi ñu ànd julli fajar loolu moo tax esplanade bi nga xamante ni moo gën a yaatu at yëpp ñu koy xalaat waaye nag dafa tombee ak euh, euh, ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha lii nga xam ne moom la feddliwaat tax ñu bëgg mu gën a yaatu moo tax ñu génne ko ci esplanade bi fii nga xam ne moo féete kër Cheikh Mouhamadul Fadal ba ci biir jumaa ji yëpp ngir mbooloom yëpp mën a teew mën a teewalu guddi gàmm gi. waaw programme bi mooy bi ñu bi ñu bi ñu xalaatee gàmm gi rek sëriñ daf ñoo waxoon Cheikh Cheikh Sidil Muxtaar bi ñu koy feddlil ndigal li ñu nag waa Rawdu Rayaaxiin dafa wax ne nañ ko fonk te de ko def ni ko bi daan defee fekk itam sax daayira bi ci la nekkoon. ci la nekkoon daan ko defee mooy sëñ bi bi mu nekkee njaareem ku nekk xam ne ni mu daan gàmm buñ ko masaan annoncé ki koy njëkk a annoncé weeru gàmm da koy joxub neexal waaye itam gàmm gi yëpp itam mbégam ci lay yokk bu ñu demee ba ci guddi gi itam fukki kaamil ak ñaari alxuraan yi dañ ko jàng incha allah waaye dina jiital aw waxtaan woo xam ne waxtaanu diine lay doon woo xam ne tomb bu ndaw bu ñu bëgg a leeral ren ñi ngi tànn nabiyul muallim yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñ borom da koo yónni pour mu nekk jàngalekat da koo yónni pour mu mottali jikkoy rafet yi innama bu'istu mu'alliman innama bu'istu utammima makaarimal axlaaq moom lañ bëgg a waxtaane Serigne Fallou Bousso Thierno moo koy def lu toll ci waxtu rek diggante 23 heures 0 heure bu jeexee nag ci la ñuy tàmbale programme boobu nag muy ñetti kuréel yi kuréelu jës bu kuréelu mawaahi bu kuréelu muxaddamatul ak benn bunt ci barzan bunt ci barzan boobu sëriñ ahmad badoy moom cheikh mahamadul fadal mi nga xam ne moo jiitu rawdu rayahin ak sëriñ afee sa moxtaar mi jiitu daari muxaddamatul xidma ak sëriñ habibu jatara ñoom ñoo koy taxawee waaye teewul nag alxuraan ji day continuer di dem waaye tam ñuy tas diwaanu xuraan diiwaan xasaayidul xadim yi nga xam ne sëñ Tuubaa da koo tag yonent bi ñu koy tasaare ñii di durus ñii di zikar ñi nga xamante ni mënuñu saxa jàng nañ yor seen kurus di def ay salaatu ala nabi ànd ak nag bernde yi ba sëriñ bi ñëw bu ko defee teewee li li nga xamante ni mooy gàmm gi ba fajar jot ñu ñaanal mbooloo mi ñëpp tasaaroo kon programme bi ni ko si sëriñ bi daan dundale ci njaareem rek noonu la ko daayira Muxaddamatul Xidma fas yéene dundale